Ousmane Sonko yi day eh, ne dootuñu tere na kuy muuru kon ci école yi lée waaw yëngal na réew mi de waaye kàddu yi abbé tamit day yëngal na réew mi de ubil la Sénégal journal bi ne église bi day waaw yekk nañu lu mel ni xamee premier ministre Ousmane Sonko aha waaw waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko day waaw daal dinañuy tontu ba mu saf laa la maa la ko wax ci lee abbé bi tuumal kon seen leader bi lée nekk tam premier ministre ne c'est un jeune xam ne day ëpp naa wax la tey terre moo tax it Guy Marius Sagna daal di ne xam le ne bépp africain boo xam ne bu sérieux nga day bëgg tamit xarañ efficace nekk ci réewam ci jamono ji lée di nga daw lépp loo xam ne day xeetoo ak ay ŋàññ ci wàllum diine di ay critique religieuse c'est-à-dire topp waaw nee na Ousmane Sonko mës nekk nag ci lu jëm ci wàllum ay ŋàññ ay critique ci wàllum diine ak lu ni mel déedéet Ousmane Sonko kay la mu xam ne daal ah mooy wàllum respect ak équité sociale le doomu aadama yëpp amadu Ba député waaw nee gis nga dafa am yenn ci ay ŋàññ yoo xam ne daal ñàkk koo tont ak noppi ja waaw day doon farata yéen kaa gi ne waaye journal du lay ka daal dina ñuy xamle carrément ne école privée catholique bi day ah fa mu nekkoon juguma de te du fa jug parce que day tere rek bépp comportement boo xam ne day wàccoowul ak seeni règle de discipline générale Moustapha Guirassy daal dinay tontu tamit abbé Latir Ndiaye mi lée xamle carrément ne gis nga lettre abbé dama ne la diine nekku ca bëgg jàmm tamit nekku ca libération yi rekaa de en tout bi day ak coow waaw bari na lool ci kàddu Ousmane loolee André Latir Ndiaye daal dina koy ton les écoles yéene kaay ne kàdduy premier ministre ba ca wàllum voile ba day waaw église ba daal dinañuy song Ousmane Sonko mi lée dama ne Leleyka évêque de Thiès Pierre Marignan ñoom ñëpp dugg ca waaw waaye Moustapha Guirassy mi lée ak Cheikh Oumar Diagne ah daal dinañuy dikk ñoom tam dugg ca kon kii di président Ousmane Sonko wala premier ministre waaw yoor yoor yéene kaay ne Mokhtar Dabo day waaw daal dinay tontu na carrément abbé André Latir de ko te du nee nga école privée catholique bi day day jàngale ci lu jëm ci wàllum resté keneen ki mbëggeel amour jàmm laafe ubbeeku waaw te ragaloo leen tamit wàllum voile bi lée di muuraay wi ma lay xamal nag yow sëñ bi abbé ne gis nga wàllu éducation di njàng-njàng ah doit être inclusive et respecter les principes de laïcité waaw waaw dama ne la gis nga wàllum éducation waruñ cee boot di kenn te nag jàpp leen ne réew mi lée dawaluñ fi charia wu julit dawaluñ fi tamit wàllum catholique nous sommes dans un weddi constitution bi li Voltaire doon wax rek je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je la mort pour que vous puissiez le dire d'accord ma ci lii nga xam ne kon moom ngay wax tey waaye danaa xeex ba dee ngir nga mën koo wax muur sa bopp nag bu dee dañ koo daganal ci benn bërëb boo xam ne dañ fay respecté wàllum laïcité ak mbirum moom sa bopp liberté individuelle waaw mais kon kenn waru koo jàppe ni ay menaces abbé André Latir Ndiaye yow laay waxal Mamadou Lamine Diatta ci yoor yoor yéen kaay ne sonkophobie ou sonkomania à vous de choisir man day dama jàpp honorable abbé André Latir Ndiaye mi de waaw nii nga xam ne noonu la yëkkatee kàddu yi di dara lu dul nit koo xam ne da ngaa bañ kon Ousmane Sonko la wax waaw waaw loolu laa sentir man mi de di Mamadou Lamine Diatta waaw ku ca nekk daal war ngaa wane ne da ngaa mer daa jib te d'accordu ca waaye gis nga abbé bi lee daa ëppal cet abbé en a trop fait wala sax dépassé les bornes laa la wax aha sëñ bi jaata ne waaw parce que sénégalais yëpp discours bi nga xam ne moom la abbé bi yëkkati day dañ caa gis ay mbóot yu salte yoo xam ni ak yu waxuwul waaye yéen ñi rafetul waay bés fi la journée abbé ba day waaw pikiir na de maara day taali waaw waaw parce que Sonko bi lée génneel ci wàllum guerre bi nga xam ne kon moom nga nekkee génneel ci gat sa gat sa gi lée Moustapha Guirassy day waaw nee na abbé lañ lay xamal gis nga lii nekkul ab débat règlement intérieur la ñuy waxtaanee kon jële wala jumaa ja cartub réew mi la constitution bi kaddu yi nga xam ne kon moom la abbé André Latyr Ndiaye mi la yëkkati day ministre éducation nationale d'accord ca tey te d'accord ca ëllëg laa la wax gaañaa nga ca werante ba day Ousmane Sonko nga ca liggéey ba yëral les ko yéene kaay nañu nag ay révélation yu doy waar yu premier ministre bi lée nee na gis nga réew mi dañu koo fekk ñu dëbb ko ba mu moo la wax nous avons trouvé un pays en ruine da doon daanu laas de Ousmane Sonko kay waaw ma ngay menacé nguur gi nga xam ne moom moo fi jóge woon de waaw waaw bés la journée ba ñuy jëmbat garab la de en tout cas ca Touba day président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaw jëmbat na garab sàkku na tamit saay bu ñuy yow nu ñuy jëmbat garab premier ministre Ousmane Sonko day waaw ci la républicain nee na nous avons trouvé état en ruine moom Ousmane Sonko day ci 24 heures waaw nee li ma wax du dañ réew mi la ñu ko ba moo ko ko laa lay wax nii complètement Ousmane Sonko nee na bis bu ñu paree kon état des lieux bi lée te daanaka sax kon pare nañu sénégalais ci boppam kon danañ wax mbir mi de façon transparente muy leer jomaay bëggul lëndëm déedéet danañ wax kon lii lañ doon nëbb situation réew maa ngi nii lée la cay topp daal di cay topp la Quotidien yéene kaa ne werante ba day bëri na Ousmane Sonko day discours a moom ah amul malande Moustapha Guirassy ne dama ne fii ay mbirum stigmatisation amu fi source aane waaye xoolal ma tontu bi lee lettre réponse bi mu bind kon ministre ministre am ci lu doy waar ca ONAS moom Cheikh Dieng waaw daa taal Cheikh Tidiane Dièye laa la wax laataa ñu koo dàq libération yi ne kaa ne waaye yow ñu koy laam-laamee de présumé délinquance fiscale ci projet Sangomar bi lée impôt day ma ngay sàkku 41 waa outside waa pétrole maa la wax li yoor yoor yéene kaa ne parc gros porteurs day Mazor Kane yi waaw daa faqati lu ci tolloo 70 camions des transporteurs ci njàppandalu procureur ak gendarmerie moo yow day quatre-vingt-cinq millions la ko nguur ga financé ñu war koo remboursé ci li quatre-vingt-seize mois l'info yéene kaay ne moo xam ne dañ koo dëbb ba mu moo ko laa la wax un pays en ruine moom la fi nguur gi fi nekkoon bàyyi yéene kaay gi ne Ousmane Sonko day waaw taxal na Macky Sall ak ñamu àndal laa lay wax nii ba ñu tax répp ar di taali maa la wax li critique yéene kaay ne waaye ñoom it ñi ngi ndaataata lante gu ndaa ndaat ak ah, la salaire u jomaay bi dong la gaa yi gis la ca même bu dee sax Sénégal kon fi mu nekk nii ma ngay paccax paccax yi ci réew yi nga xam ne ñoo gën a ñàkk a avancé waaye seeni dirigeant ah ñi ngi ndaataata di gundaa ndaat ak noos si jamono yoo xam ne yow askan wi day fi mu nekk nii sonn nañu genn xeetu sonn koo xam ne maar di taal ci diggante banqaas yi lée primature ministère ah, ay milliards yi milliards ay teraanga yoo xam ne kon mooy rot ci seeni loxo day ëpp na dama ne la génnee ca salaire u Bassirou Diomaye sociale et environnementale président au conseil des collectivités territoriales waaw ku ca am nga caisse noire cinquante par weer wu dee wu ne la ilaha illallah maanaam six cent millions la Abdoulaye da Diallo di am six cent millions la Aminata Mbengue Ndiaye di am ñëf Walfadjri ne droit de diffusion yi day ci TNT TDS day ma ngay menacé couper signal Walf TV ca jamono jooje stade ak suñu lamb day directeur ba Mamadou Ibra Kane waaw nee na tëj na allahu laas de ca Bakel day la fa xew doy na waar benn gaal goo xam ne daa suux lu tolloo ñeent ci ay doomu aadama laa wax ni lée eh, daal di cay dee inna lillahi wa inna ilayhi raji dama ne la fukk ak ne may réer kenn gisu leen libération yi kër ma lamin day waaw lu tolloo juróomi taalibe ñoo faatu ginnaaw aw lakk woo xam ne kon am na fa leesi ko yi rekaay ne ca Medina Fass si Kambaaw waaw benn gone gu jigéen koo xam ne ñeenti at la am day benn fasu maam ma ko rey allahu akbar beneen lakk boo xam ne ko daa am ca yëmbal sud gële benn waaju am ñaar fukki ak benn day moo ca dee tàkk faatu kon ca biir néeg ba ca Pikine deuxième robinet benn doom bu jigéenu commissaire u police ak benn juge waaw moom la benn xaritam mu nekk ca daara ja rey dem naa ca lamb ja source année waa CNG bi day waaw danañu réunion de ci tuuma nga xam ne kon moom la leen Balla Gaye 2 daal di ci kaw ko doy na waar <laughs> waaye lu mu doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar bu leen fàtte ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rek ndax Sonko jomaay te jomaay mooy Sonko boo paree ma ne la alaaji